ministre en charge des institutions, honorables députés, cher collègues bokk Sénégal bu fekkonte ni képp ku ñu àttee lu la neexul dëkk bi tàkk kon bis bu ne dëkk bi tàkk bu fekkonte ni dañu war a am commission yuy enquête ci lépp lu réew doxul ci réew yi jàpp naa ni taxawal dañu commission buy enquête ci assemblée nationale bi bu yàgg ndax wax dëgg yàlla askanu Sénégal def naa ni des nañu wekk assemblée nationale boo xam ne saa yu ne ay xulu ay xeex ak ay saaga waaye comme kenn mënuñu enquête ñun ñu ne ñun nañu enquête ji juge man yàgg naa wax ci mbirum injustice bi nga xam ne naufrage bi nga xam ne moom la justice Sénégal dëkkee waaye bu ñu seetloo bu conseil constitutionnel atte woon leneen lu muy atte ci mbir yi fi xew bu boobaa la ñu war a ma bu fekkente ni conseil constitutionnel Sénégal ci réclamation yi nga xam ne teg nañ ko fi muy yi ñu teg bu àtte woon leneen lu wuuteeg li mu àtte bu boobaa la ñu war a dut baaraam conseil constitutionnel parce que le droit a été dit sur la réclamation que j'ai portée le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir à partir de ce moment les députés, les députés du Sénégal, à partir de ce moment l'Assemblée nationale du Sénégal bi nga xam ne moom moo woon la loi sur le parrainage ici confier au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage taxaw tey di naan dañuy weddi le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler les parrainages erreur bi mu ngi jógee ba ngeen demee assise dialogue national ngeen dem dialogue national nangu lépp jàpp ni tout va rouler comme sur de l'or vous avez fait face à la justice de ce pays oui la justice a été dite et c'est une honte c'est une honte C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, di sosale nit comme niñ may sosalee comme ni ñu yàgg a sosalee bépp gor bu taxaw di défendre Sénégal loo tax jaaxal na ma tey bu fekkee tamit. da ngeen bëgg waa Bennoo yéen lay waxal yàgg taxaw ni. Ceci ne m'ébranle en aucune façon pas. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous constitutionnel le contrôle que vous la caravane la caravane, va, la caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au partie de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal, Monsieur le Président, vous avez constaté que j'étais victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport Merci vous la même célérité pour faire le rapport Merci. contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci.